can separate you from Munchie? <laughs> Mommy, Munchie is so sweet. Mommy, I cannot live without Munchie. Indeed, nothing replaces Munchie. Uh-huh. My husband can't live without Munchie. Munchie, Munchie. M U N C H E E. Munchie, Munchie. Yang ha? Uh, Lakam? my friend. 여러분 야, 그래서 Wow! Cakap bide, tiara la manu. dengan am tiara sam bigger bi. Wow, nyusun ke tiara glan da jafan ko. Do mak do halan ni nyep mom nan da jafan. Tiara jus da, mo nyotara. Yok kol, so ma wolo. Is nga sheri, lidi Wow! That's nice. wonderful juice bii mooy ban juice cest bii mooy tiyaara juice xanaa gan la fi teera dee du fi gan neexaay bu mu neex ak bugga bu ko nit ñi bugga moo tax duy doy tiyaara juice moom ku si bugga lu bari am na ci bépp bitig si marché si supermarket fu ne la am lu ci gën a neex mooy soo bëggee xool séer waaw ngaa dem sa MFH foofu nga ko mun a amee am na ku la amna strawberry amna mango amna pineapple amna berries amna orange amna lemon amna pineapple coconut amna passion fruit amna peach tiara juice bi dal mo ñuy taral pare nadine era e eh, cash bawa mum bawa cash bawa cash bawa mo mo don le ko ñaan ki le ku gudol na de gaf me ko ki bawa ñing ki bawa ni solo na je do ki sa no tare bulu doron ya register ite isimi ta kile register nola isimi ta simita register nola ele limbara fana mo mo be kono o fan sila o mita mo registanole e be men kala doro is test ki doro kabola mo doro kana tri tri tri e register sa test ki doro tri tri tri ne ba kele go sanna is sky ska ka sanna wala ila ki sel kele go mo be mo doro e e si test ki no to tri tri tri e pin number di abanda e kaspa san ku ngabla adu nyin ku kuma ba me ajani ilma ana fulo flu ni mbago kanjam adun kiu sel fulo yana ni mbago e dan kiu je anyo mo manja i ko ngadu banda arjana ya, e ko ne nga pa ni thank you قبه الجمعه تاتيكم من دار ازاءه جنب المرئيه يعدوا ويقدموا لكم اخوكم في الله امام راتب الحاج شرنو علي الماسكا بكي سيتان بي ديغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خطبه بيغا خامني بي جي ار تي اس دينا نكاي جيلي سي جمعه جمعه جي بانجيل كين فات كي كاي بريباري ديكو جوخي موي سين بوك امام راتب الحاج شرنو علي الماسكا خطبه غوغل مو سي وات تي والخطبه اليوم تتعلق في موضوع سعر رمضان صيام رمضان خطبه جي اجي سي weeru koor ak woor weeru koor ndax ci jamono boobu ci la ñu toll fi mu nekk nii woor weeru koor nag koor dafa nekk loo xam ne ibadatun ruhiyatul badaniya jaamu la goo xam ne gi dafa yóbbuwaale ruu yóbbu bakkan yóbbuwaale jëmm yóbbuwaale xol yóbbuwaale lépp ndax bu ko fee kon koor nekk jaamu yàlla goo xam ne gu mag la goo xam ne farada allah ala al ummati al islaamia kama farada ala al umma allati yàlla farataal ko ci xeeti islaam ni mu ko farataal ci xeet yi nga xam ne ñoo jiitoon وقال جل من قائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني خمنا قم جن يلا قم القرآن دي جلد فرطال ننشيين أور وير كور نينكو فرطال وان شقير يعني خمنا ينولن جيتوون بغد فيكون كور فرطالا بغد فيكون ني جيتوون دين دان وار su ko fekkoon ñun buñ ñu ko tege nekk na loo xam ne li jaamu bi war la ci indi ci ñun jikko rabal ragal yàlla te ragal yàlla mooy jikko bi gën a koowee ci la ñu taggee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne wa innaka la ala xuluqin azim yaa gën a rafet ñëpp jikko ci yow la ñuy tànnee jikko yu rafet su ko defee loolu bu fekkee dina am na moom koor ñëw def ci ñun ragal yàlla te yàlla wax ne inna akramakum indallaahi atqaakum ki gën a tedd ci yàlla bu ngeen ñëwee ba ca moom mooy ki gën a ragal yàlla gën a rafet jikko kon koor li muy def ci ñun nekk na loo xam ne lii lu rëy rëy la fil kitaabi wa sunna waru koor nag sax na ci alquran sax na ci sunna alquran mooy fi yàlla wax ya alladina amanu kutiba aleykum siyaam kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaquun yéen ji li ñu gëm alquran farataal nañ ci yéen koor ni ñu ko farataaloon ci xeet ya leen jiitu woon ndax dana def ci yéen jikko bi nga xam ne mooy ragal yàlla nga xam ne mooy sang jikko yépp kon loolu jaar nañu góorgóorlu ci koor gannaaw loolu itam koor nekk loo xam ne lii eh, yàlla bi mu ko farataale ci alquran sunna itam ñëw na indi ko yéen di wax ne buniyal islaam ala xamsin saadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zakka wa sawmi ramadana wa ajjil bayt liman istata ilay sabilan kon koor war na ci sunna yeneen di wax ko ci addis boobu boobule kon war nañoo góorgóorlu weer yu ñëw na weer la woo xam ne weeri teraanga la weeri barke la weer la woo xam ne yàlla def na ci ay ngéneel yu baree bari sallallahu sallam biral lañu ko wax ñu ne awaluhu rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu hitqun min annaar njël benn weeru koor fukki njëkk yi yërmande la yàlla boo gisee mu yonent bi leeralal ñu ko nag mooy yërmande mooy doxal bépp jëm kanam mooy doxal bépp jokkoo bu rafet mooy doxal ànd bu rafet mooy doxal itam éene yu ante yu baax ci diggante ay ñoo xam ne ñu ngi dund kon koor ñëw na defar société bi ci jikkoy yërmande ji nga xam ne ji moom lañu yàlla yërëmee bi mbind ñu bind bu baax bi mu ñu bind yërëmee ñu ko ba yónni ci ñun yónnentab yërmande wax ko ne ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërmande moo tax ñu yebal la nga nekk yónnentab doomu aadama yi kon loolu bu fekkente ne wala bindee yépp bon bu fekkente ne loolu am na kon yërmande bu doxee ci société bu ne dañuy daal di juboo dañuy daal di nekk benn dañuy daal di jëriñante dañuy daal di taxawwante moo tax kon bi mu bindee xeet bi ci yërmande yónni yónnante bi yërmande indi diine ju oyof diine jàppandal gannaaw loolu itam mu sant ñu ne nañ yërëmante suñ diggante yërmande jooju lu am solo la su ko defee kon ñu bàyyi si xel fexe bay yërëmante tey dimbalante tey taxawwante ndax yërmande mooy fukki fan yu njëkk yi bu ko defee awsatu maxfira diggi koor gi muy fukki fan ñaareel yi loolu man la mooy njéggal la kon yàlla mu ñuy jéggal soxla ñu itam ñuy jéggale su fekkee jéggalante nañ suñu diggante dafay am njëriñ lool ndax buñ yërëmante yàlla yërëm ñu rahimuuna yarhamuhum rahman ñi nga xam dañuy yërëm ñu ëpp doole yàlla yàlla dana leen yërëm moom mi nga xam ne moo tudd rahman gannaaw lu itam mu nekk loo xam ne lii eh, dafay jafar society yéen ti wax na ne ala adlukum ala sayin isa faaltumoo tahaababtum qaalu bala ya rasulallah mu ne nag eh, tahaadu tahaabo sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndax du leen digal loo xam ne ci ngeen ko defante seen diggante jikkoo ko da ngeen buggante te kat seen gëm yàlla du mat lu dul da ngeen a buggante bu defee bu fekkee loolu am na nag lii tax buggante sax seen diggante ndax du ma leen ko digal sang bi rasulullah bi mu waxee loolu saaba yi ko bala ya rasulullah akay yooyu yonent bu tedd bi mu ne du taabu na ngeen jëriñante su ko defee da ngeen yërëmante jëriñ bu doxee sa diggante nit dafay di taxaw su ko defee loolu nekk lu am solo mu ne kon nag jëriñante leen su ko defee ngeen yaramante mu ne jubilatil xuloobu ala hubbi man ahsana ilayha wa di man asa ilayha yàlla dafa bind xol yi mooñaale ci li nga xam ne ñaar la benn tomb bi mooy bëgg ku leen di teral benn tomb ñaareel bi mooy bañ ku leen di toroxal kon doomu aadama ku koy teral rek dana la bëgg waaye